Eh, waaw kay jërëjëf ñu ngi doon wax waa Jean rombal noonu ñu gisaale sa tànk yi eh, roxoye jox ma Jean mu nga noonu di dugg wala kay gis ngeen <laughs> waaye yow tànk yi lan la daa tubaab bi mosuñu la contacter pour def benn documentaire wala dara si yow jaafu waay moom laa lay agent jaafu waay yow kenn mosu la contacter pour def documentaire wala daal <laughs> laaj la sa tànki lal la damay laajte rek. kuy anniversaire gaaw dama <laughs> yow kon tey ci man tey ci ma dugg non non anniversaire li ma sa kuy anniversaire dañuy def. ah dëgg ay waay anniversaire yi. Pape Sidi jërëjëf ci anniversaire yi. Ah, ma def soo dee mm. ma nga ko xat dosé tuyu ak xadi baaba xadi baaba sama xadi baaba sama xaritu xol ma nga Thiès. boobu mm-hmm. ñu xat dosé tuyu ak ah madame Diop waaw c'est de la part de mami Diop moom it. Mm-hmm. waaw des na keneen waaw. Euh, doomu Naduka fecckat Naduka moom chinois ma ca ma ca Amérique day fecc fii Sénégal. Hmm? waaw doomam doomam Seydina Issa Rouhou Laye moom it day anniversaire. chinois ba tuddee Seydina Issa Rouhou Laye. la Pakala mooy ah, bàyyi. ah ok ak man mais daal ñoo moom gelu léegi dinaa ñëwaat ci anniversaire yi. en ñuy ñuy yegg si. est-ce que mën nga dem fële na ci Tafa. nga am loo ma fa jëlal. nga indil ma ko s'il te plaît. am na surprise bu ma la bëgg a defaral tey. Ah, pour anniversaire yu yow dootoo anniversaire yu demal si Tafa nga ñëw. genre rombaatal gaa yi gis sa tànk yi rombaatal gaaw. <laughs> <laughs> il euh, dama lay daal di euh, wanale ki nga xam ne moom la ñuy wax monsieur Mangane ah Mor la tudd wala vieux bokk euh, étudiant la moom mu ngi bokk ci ndaw ñi nga xam ne état bi daf leen. orienté ci établissement privé. Euh, mooy établissement privé yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale jàngale mu kaw mi. ay mm. étudiants lañ waaye dañu am ay jafe-jafe loolu moo tey euh, waral Ibrahima Balde euh, dalal ko ci plateau bi ngir ñu waxtaane ñoom seen i jafe-jafe tout en sachant que privé bi li fa am bokkul dara ak li am ci vraiment public bi parce que privé bi c'est bien structuré c'est da ngay am organigramme jàng ak yooyu mais da ngeen am jafe-jafe loolu moo waral tey ñu dalal la ñu bàyyi la nga nuyoon teg avant maa ngi leen lay nuyu Pape Sidi euh, di nuyu sama naataango yu ma fekk ci plateau bi di nuyu aussi téléspectateurs yi ñu suivre mhm. euh, sur la 2STV yi Jean maa ngi tudd Mor Mangane mhm. je suis le vice-président de l'amicale de l'ISEC mhm. mais aussi le coordinateur des étudiants envoyés par l'État au niveau de notre institut et en plus aussi je suis un représentant de, de l'ensemble des étudiants orienté par l'État dans les écoles privées. Mhm. ci kanam tuuti dinañ ci dellusiwaat si waat euh, dama xamul naka lañ koy organiser waaye seen bu loola. dinañ ci dellu siwaat ci kanam tuuti ngir gën ci waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di Mor euh, bokk ci ndaw ñi nga xam ne dañ leen orienté ci établissement euh, supérieur yi nga xam ne ñoo nekk privé et supérieur yi nekk ci biir Sénégal ñu ngi nuyu bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog di ñu seetaan foofule ci jamono ji ci ISEC ak mbooleem daara yi nga xam ne dañ leen fa orienté woon te ñu am ay jafe-jafe Seynabou mhm. euh, du ñu bugg song ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu war a daafal ak euh, Abdourahat ngir li nga xam ne moom la ñuy gis ci internet bi en tant que jeune toi tu es sur le net des fois tu vois des trucs ça comme par exemple la dernière chose que nous avons vue sur le net mooy xale bu jigéen boobu doon fecc te yëgul te ñuul foo di foo jipp ba xotteeku ñu jël ko rek taf ko ci internet bi def ko point de euh, départ u reetaan. mais eh, loolu mooy la dernière chose peut-être bu ñu gis. Mhm. ci net bi est-ce que nekkul li gën a minime. Mhm. ci lu ñuy wane ci ci net bi walla lu nga xamante ne ñu ngi koy faral di partager. Mhm. Pape daa daa ñëw nii rek mais am na yeneen yu ko fi jiitu yu ko gën a garaaw. yoo xamante ne moom la ñuy moom la ñuy faral di partager. Abdou Lahad moom euh, Touba la dëkk. buy wax sax di nga xam ne kii euh, kaw kaw la. <laughs> waaye moom dafa il est présent sur le net. mu ah ngi ah. ay groupe euh, comme Galsen Fun moo ngi ci yenn groupe sama jëkkër sama xarit il est actif sur le net bokk si ay groupe yu bëri di gis interaction mu ngi am ak jeunes yi bokk na si ñi presse par exemple ñi ëpp lu ñuy def ay commentaires ak yooyu donc je pense qu'il est bien placé pour indi ci ay éléments de réponse ndaw ñi yar bi ñu am ci kër yi est-ce que am na répercussion si internet bi. Euh, jërëjëf Pape Sidi euh, xam naa damay wax ne. dafa am ñi euh, loo xam ne dañ ko boole woon te bokkul woon loo xam ne dañ ko séparé woon avant bi ñu ko booleel nag ci la ci lañ gisee loraange yi avant. dañoo wax ne internet euh, internet ak téléphone bokkuñu woon. Mhm. départ ba téléphone la ñu waxoon téléphone à part internet à part. ordinateur à part euh, téléphone. bu njëkk ba. Mhm. bi daan soog dikk téléphone la woon boo xam ne da dugal sa baaraam wëndeel. Mhm. bàyyi soo bàyyee mu delluwaat. nga jëlaat benn chiffre boobu lañ xamoon ci téléphone nga mm-hmm. ah, gis boroom barke yi ñoo ko daan am benn laan doon doon ci koñ bi ki nga xamante ni euh, da koy day day dañ koy woo téléphone day dem ñu jongoro téléphone bi mm-hmm. patient am patience nag toog loolu mën naa toog lu tolloog dix di xaar ki nga xamante ni moom moom lay mm-hmm. moom lay woo loolu moo amoon bu njëkk léegi mujj gi affaire yi di dem di changer ordinateur moom internet moom itam da nga daan dem cyber café ma ngoog voilà euh, fay 250 juróom fukk ngir ñu jox la une heure de temps wala lu ko ëpp ñu 30 30 minutes lu ci nekk ak njëgam loolu lool lu ci lu ci nekk rek ak euh, wàllam la woon. Uh-huh. waaye nag ñàpp ñaari matière la woon yoo xamante ni benn bu ci nekk rek doon wax ci communication bii ci communication bii ci communication mujj gi nag. Euh, téléphone fekk ci internet ñoom ñaar ñu lëkkaloo bi ñu lëkkaloo nag ci la mbir mi am lu jiitu euh, lëkkaloo bi da nga doon gis ay ay ay un deux trois love ay duudu yooyu. Mmh. Euh, voilà ah, yooyu ay xeeti kii yoo xam ne voilà dañ daan ci envoyé message mujj gi ñu indi MSN. Mmh. boo xamante ni vidéo loon boo xamante euh, ni appel vidéo la. bokkoon na ci yi nga xamante ni logiciel yi nga xam ne moo gënoon a yéeme ci boobu jamono. Mmh. parce que nit daan nekk fi gën a sori ci àdduna yow nga nekk fi gën a sori ci àdduna yéen ñaar ngeen di gisante ngeen di déggante ak yu demee noonu jamono dikk. ñu ne amaan na beneen boo xamee bu ñu naan Skype image bu set. gën a set MSN gën a rafet MSN gën a efficace MSN gën a euh, son bi gën a leer ñu ñëw indi Skype ba jamonoy Skype nag bi mu ñëwee ci jamono boobu nag ci lañ boole boole téléphone ak internet. ñoom ñaar ñu lëkkaloo. ba agsi euh, fii ndax téléphone fixe la daan doon. daawoo ko déplacé mujj gi. Euh, téléphone benn kii la woon boo xamante ni ñu def ko sans fil nga xam ne am benn distance boo xamante ni fi mu nekk ak yow dinañ may benn distance boo xamante réseau bu daw def dara mujj gi nag léegi nag sans fil googu nag moo ñëw fekk si yi nga xamante ni mooy internet internet Skype ñëw Viber ñëw Imo ñëw. Mm-hmm. ba ci WhatsApp ak Facebook mooy ñaari communication yi nga xamante ni fii yëf yi toll ci Sénégal lu yàqu bokk na ci. Mm-hmm. lu ci yàqu. su noonu 100 pour cent da ngay wax nag 80 euh, pour cent yëpp internet bi am na ci wàll wàllam euh, nit maanaam mag. Mhm. dina yar ay njabootam yar ay njabootam def leen li war toog ci buntu kër ba tegal ay tànkam di liir ay journalam tëj buntu këram mbir jaare ko ca kaw féete kaw dugg ci biir këram yàq ay njabootam génn tëdd ci bàyyi xel. Mhm. te moo di internet. Mhm. mooy li nga xamante Euh, mbir la moo xamante ni mbir mu doy waar la ndax ci whatsapp bi ñu fexe nañ ba def ay groupe yoo xamante ni euh, famille la dina jël tolloo 56 personnes juróom fukki personnes ak juróom. juróom fukki nit ak juróom bi voilà voilà 200 200 256 personnes. waaw je 256 personnes. Mm. mujj gi amoon na sax bu ñu leen wax naan euh, euh, euh, Telegram. Mm. Telegram mujjoon nañu waaye Telegram gis nañ ne Sénégal xam naa ne WhatsApp bi ñu njëkk a xam moo tax mënuñoo ko parce que Telegram moom sans limite moom nit ñi bari bari bari moom dina ko dina ko jël. Mm. mais kii. xam naa ne efficacité bi ci nga xamante moo ko am ak décoration bi ak euh, kii rafet gi mu rafet ak mucc ayib gi mucc ayib moo tax euh, xam nga li danger wul mm-hmm. mooy euh, dès que la communication reste privée ça peut rester privé quoi mm-hmm. mën na bañ a impacter ñeneen mm-hmm. par exemple pas allemand bi nekk ci koñ bi yar doom ji vingt heures jot mu ne ko reeral jàppal jullil sawal tëddi xale bi dugg ci biir néegam. Hmm. jënd connexion. Hmm. nekk ci euh, internet bi def hmm. appel vidéo moom ak Farwan muy def yooya. muy def. munu ko mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko mënatu ci dara. moom laa loolu événement bi dépassé na ko. mais problème bi am mooy. Uh-huh. léegi li nga xam ne moom mooy. Euh, rapport bi ñu am léegi ci li privé. Uh-huh. ko public. waaw nit bu defee njuumteef sax. ñu jël ko def ko mokkari. wala reetaan ko wala uñi suturaam te mu leer la bu doon sa yaay. wala bu doon sa mag. wala bu doon sa mbokk loolu di nga ko nëpp nëppal ba kenn du ko yëg. loolu bokk na ci li ko fi indi Skype dañuy jël li nga xamante ni privé la yow yaa ko war a xam rek maanaam yow la yitteel nga génnee ko sooy sangu ba pare génne toile ci toilette bi waaw nga def selfie génne dugal parce que. ñoo ngi la koy ñoo ngi lay ñoo ngi lay jël sa yaram di ko génnee ci biir te bàyyiwoo ci xel ah, ah. ñoo ngi la koy defloo te ah. te bàyyiwoo ci xel ngay togg jigéen ñi suñu mbokk jigéen ñi lu ci ëpp ñoom ngay togg ni lii laa togg tey yow dépense bi la nga xam ne sa papa moo la ko jox wana nga ne man li ma ci def kat lii lañ bi mu ko demee ci marché bi lii laa noonu ci def te bàyyiwoo ci xel nga génne wana ku mbedd mi nga defar sa añ ba pare teg ne xoolal selfie yaa ngay selfie de. Mm-hmm. ne man de xoolal nii de laa duggee ci waañ bi. nangam de Snapchat qui a proliféré si affaire boobu nag mooy indi mooy indi maanaam li nga xamante ni dafa nëbbu woon ñu di ko génnee. Hmm. looy wax ak sa xarit looy def sa xarit la nga jokkalante say xarit yaa ngi koy génnee mujj gi nag léegi génne bi nag léegi bës la moom ak lu mën a xew rek da ngaa war a génnee. li nga war a nëbb nëbb moom mënut am privé moom mënut am da ngaa war a nëbb ngaa war a génne li nga xamante ni dafa nëbb woon léegi nag ci loolu nag ci la xaawi xaawi sutura yi nag dikk mais bu ñu ñëwee ci xaawi sutura boobu noonu danger bi fi muy nekk ci bu lu waroon privé. Mm-hmm. dem ba nekk public parce que bu ñu xoolee WhatsApp yi léegi la na fi mu ngi mm-hmm. euh, nekkee ci groupe WhatsApp wax nga léegi mën na jël ba deux cent cinquante mais da gis groupe WhatsApp bu def ay cinq personnes nga fay wax suba da nga koy fekk ci mm-hmm. beneen groupe boo xamante ne que plus de deux cent ca. amaana xamoo leen. suba groupe boobu noonu parce que ku bokk nga ci fukki groupe ak juróom. tey bu ma waxee boo xam ne man yow la ak Pape Sidi yow culturel ñoo ci mhm. nekk alors euh, caractère privé boobu nga xamante ne ni que moom la ñu doon wut ba tax ñun ñu créer suñu groupe que ce soit groupe WhatsApp wala mhm. groupe Facebook bu ñu demee ba benn nit bokk na ci fukki groupe loo dugal ci groupe bu nekkee Facebook screenshot nañ ko mhm. euh, yónnee ko euh, envoie def ko ci yeneen yeneen yeneen groupe bu fekkente ne ni que c'est sur WhatsApp ba mu amee bés partagé ba tey kenn sonnatul loolu nekkatul danger ci ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëfandikoo yooyu les réseaux sociaux te dem na ba sama genre gi groupe bu ñu bokk lañ koy def duñu commenter duñu wax. Euh, ba internet ñëwee ci la xaawi sutura am avant internet xaawi sutura amutoon kenn ku ne da daan def li nga def ci sa biir kër te kenn du la xamal dara. waaye ba inter bu amaat ba am xanaa bu ñu nekkee groupe koñ bi waa waa waa waa waa Moretti. mu ngi waa Bosi Posi. waaw ñu dem kenn mu ñëw ñu ne ko yow yaay yaay jaamu groupe bi génnal. yaay traître bi mais ça ça su ko defee su guddi ñëwee bool daf ñëw. bien ñu ñu reer wala ñu añ. daa nga booba. boobu ñi nekk ci koñ bi rek ñu daan bokk léegi nag fii jamono toll na génn na koñ bi uh-huh. génn na dëkk bi le monde est devenu un grand koñ le ñëpp ñu bokk da ngay jël ki nekk États-Unis jël ki nekk France jël ki ñu daal bokk ñu bokk léegi nag audio bi nga wax mën ngaa jël wax ak benn audio boo xamante ni yow ca groupe ba uh-huh. ñoom la intérêt waaye nit da koy jël amaana sax mën nga ciy jëw nit uh-huh. waaye nag waxtaan la woon nit daal di jël est-ce que du sax audio boobu mën naa doon loo xamante nii mën nga cee wax lu jëm ci wàllum njiitu réew mi mën nga cee wax dara loo xamante ni da wax dëgg yàlla voilà voilà da nga doon ci wax rek maanaam loo xam sa xalaat la woon nga lu ñu laaj la nga wax ñu jël tasaare danger bi ñëw ñu jël kii tasaare su doon tey ku mel ne Abdou Lahad tey waxoon ci peut-être ci ci njiitu réew mi wax ci loo xamante ni lu ñaaw la xëy na maanaam audio ba mën nañ ko bañ a tasaare mais koo xamante ni dëgg yàlla xam nañ la xam nañ sa tur gis nañ la télé dégg nañ la rajo soo waxee rek moo tax sa classe gi seen seen classe gi toujours war ngeen a bàyyi xel ci loolu ndax saa yoo leen wax rek nit a ngi leen dégg ba xam ndax la ñuy wax ñaawteef la am du ñaawteef. ay toj rek la ah ah xam naa la yow. man ay toj toj rek la mais man xam nga euh, ragaluma ko quoi. man Adama ok defe naa li ma mën a wax si groupe WhatsApp mun naa ko wax si ak samay copains. Ah. je que bu nit ñi génnee aussi bon. voilà léegi nag léegi nag danger bi danger bi mooy comme ci xaawi sutura bi. Mhm. image nag dafa am à part audio à audio image nag dafa am te image mooy bi nga xamante ne mooy gën su dee audio sax mën ngaa wax ne nit ki euh, am na ñoo xamante ne waaye nag su image amee image bi nga xamante ne yaa ngi koy wax sànq. mooy soxna si nga xamante ni doon fecc ci mariage mi muy fecc affaire bi ñu jël ko kenn ko ni dugal ko ci internet bi. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi xalaat ne yow li ngay partager ëllëg mën na laa dal wala mu dal keneen ko la jege. Mm-hmm. su boobaa nooy def. est-ce que di nga bëgg ku dinga bëgg ku ko sàng sutura. di nga ko pa di nga ko dindi ah, kanamu xale bu jigéen boobu def fa sa yaay. est-ce que bu doon moom noonu di nga ko toroxalee noonu. ma ngoog kon yi maanaam euh, yëf yi li li li ko dal moom moom juumte fu nekk lu jugee te ndogal dafa gaaw. ndogal la sax ndogal dafa gaaw yëf yi mën ay jékki-jékki rek dal sa mag wala comme ni nga ko waxee wala sa yaay wala sa rakk wala yow ci sa jëmi bopp nga def ko te su boobaa di nga bëgg ku la mhm. kon avant yow da ngay da ngay nit ñi ba pare. ndax ku suturaal nit ñi yàlla du la suturaal. mais sutura boobu bu ñu yeggee ci jamono ji nga xam ne Pape Sidi maa ngi yàkkamti lu ma ko xamal moom. Mm-hmm. ba suba ma ñëw mm-hmm. wax la ko sutura. wàll tollatuñ ci jamonoy suturaal. dëgg la mooy weerante bi. nga xamante ne moo am ci biir naa lu ma xam ci Pape Sidi ba ñëw wax la ko. mooy weerante bi mooy weerante bi nga xamante ni da bi gën a danger mooy bi nga xamante ni mooy bi am ci internet xam nga su fekkee dañoo toog nii rek nga dégg euh, kii wax nga xamante ni waxu ko audio waxu ko whatsapp waxu ko facebook mais dala la da ngeen a toog rek yéen ñaar su leen ko dégg nga dem nettalu ko sa bopp loolu amul amul danger bi mën naa bañ a dem mais mm-hmm. audio bi nga xamante ni yow yaa ko enregistré mm-hmm. bi nga ko enregistré weddi amutu fa mm-hmm. mënatoo faa weddi soo weddi ñu indi la audio bi ne la lii yaa ko wax yi yow la wala yow la man léeg dama daan toog euh, ci ci yari sama yaay daf may xool ma xam li muy bëgg a wax ay gan dañ naan tëll ci kër gi mu ne ma jàkk bët ma jóg génn waaw mu wax man communication ci bët dafay xool rek xool wet gale ma jóg dem def li mu wax léegi ma daan toog ak sama mam mu daan ma wax naan ma jombaleel sa bopp wax ci ginnaaw nit loo xam ne bu taxawee doo ko ko wax. jomb jomb di di ma jàngal jomb. Mm. di ma jàngal am communication. Mm. sans les mm. di yar nit ñi ci sutura. Mm-hmm. worma mm-hmm. kersa. Mm-hmm. am yar. mag bu la féetee mag nga ormaal ko. wan wax wax ju am mais ainsi de suite mais léegi dafa mel ne. parents yi ñoo éduqué tout mhm. wala li ñuy jox xale yi bi ñu demee si réseau yi xale yi dañ ko doon defati c'est quoi en fait. voilà c'est juste et ça Pape euh, li ma si yokk rek mooy léegi kër goo dugg. Euh, bu Pape Sidi nee na sànq doom ji bu ko papa ji nee tëddil ma nga mais est-ce que léegi papa ngi wax ak doom est-ce que yaay ngi wax ak doom papa ngi yore peut-être télécommande am ma nga toog ci kanamu teleem yaay mi ngi yor tablette am ma nga toog ci rukk ba taaw bu góor bi ma nga ak téléphone ma nga toog amatul discussion yooyu noonu ci biir kër yi est-ce que loolu itam nekkul luy sooxeel suñu éducation quand au moment où on parle de mhm. euh, du contrôle des parents est-ce que parent mënati na contrôler fekkee moom ci boppam amatul limite bu fekkee moom ci boppam amatul limite ci internet pap euh, bu dañ daan toog ci ëtt bi jamono joo xamante ni ñëpp ñëw nañ wàcc mhm. yaay mi ngi ci kër gi xale mi ngi ci kër gi mag mi ngi ci kër gi suñ reeree ba pare ñu toog ci ëtt bi waxtaan mhm. sottante xalaat léeg yaay bëgg a gis doom mhm. woo ko ci fa bërëb moom ak ñoom ñaar ñuy waxtaan defal ni lii baaxul gis naa la fii dégg naa la fii nangam nang waaye fii jamono toll suñu xasee toog rek kenn kon yaa ngi manipuler sa téléphone léegi moom su boobaa waxtaan amatul da Euh, dix personnes ci même bërëb doo nga dugg fa doo dégg benn bruit doo dégg benn wax. sama kër doo dégg benn wax kenn ku ne yaa ngi toog. yaa ngi waxtaan ak koo xamante ni ne jàkkaarloo leen yéen a ngi feneen. ma nga feneen yéen a ngi doxal léegi nag loolu nag danger am na. su fekkee ne dem nañ ba parents yi nga xamante ni benn parce que am na ci ñoo xamante ni amatuñ yar amatuñ temps yar seen yar seen i njaboot. Mm-hmm. amuñu temps boobu léegi ñoo ngi ci. Euh, wutum koom-koom bi jënd ci jaay beek yu demee noonu su ñëwee xaw a dee dañuy ñëw rek daal sànnee ko du ñëw laaj yaay ba xam lu xew ci kër gi doom yi fii nangam nag léegi yow sa doom su kii rek su xawee am tuuti ci at rek li njëkk def mooy wutal ko tablette boo xamante ne moom lay fooyee. Hmm. tablette daf la koy laaj. waaw da la koy laaj. waaw léegi xale yi da nga jox téléphone ñu mën ko dindi ko. Ah, euh, dindi séema bi dugg la jeu bi di def ay ay jeux yëpp. Ah, ah. léegi di battre sa ay propres <laughs> yóbbu. tu mag nga léegi. li a comprendre. Ah. dëgg la te am na ci yoo xamante ni sax pour nga xam ko da yokk xale bi mu réglé la ko. Ah, ah. moom moo la koy réglé parce que xam nga yow bu njëkk téléphone ba ngay jàng téléphone amutoon. Mm-hmm. am na ci loo xamante ni soo ko daan def ñemoo koo def. Mm-hmm. Eh, ca ci jamono ci bi ngay xale mais gis na xale yi léegi yow am na ci foo yoo xamante ni yow bi ngay xale doon nga ko foo léegi xale yi dañuy am cinquante six ans rek di xëcc loo xamante ni. yow moom ngay xëcc. wallaay euh, lambi golo yooyu yooyu gisatoo ko xale yu ndaw dañ daan gis ay dawal mbége. defar ay fas ay saret ay oto daw su ko defee nga pënd. yaay yi ñëw xëcc la sumi dama raxas sa tànk dama raxas sa tànk daan lay sang <laughs> eh, léegi loolu amatul xale yi léegi léegi xale yi xale yu ndaw léegi xale yi léegi gis na xale yu ndaw léegi ñoom daal moom duñ takk. c'est la classe. c'est la classe. duñ takk. papa téléphone la ma sama doom di ko wax ma ne ko teele. mais papa man dama war a am téléphone ma ne ok. <laughs> léegi nag su ëllëgee rek ñu wutal ko tablette. Ah. yaa ngi koy xemmeem loo. yaa ngi koy am na tablette ah du ma ne ko te loolu c'est dangereux <laughs> ak ordinateur. muy connecté di def yëpp di dugg foo xam ne waru faa dugg. di def foo xamante ni waru faa. te te internet moom. sans limite la. léegi lan mooy solution bi tey peut-être bu ñu amoon benn solution. Euh, xanaa ñu surtout côté yar bi man côté yar bi laay laay laay gën a waxee d'abord balaa dara xew mhm. faaw waajur yi ñu yar seeni doom faaw yab ñu yar xale yi avant avant avant avant yar yi maanaam mhm. avant euh, mhm. avant avant état avant état faaw ñu wax yar bi éducation bi d' abord. Mhm. ci kër ga. ci biir kër ga waaw ci biir kër ga d' abord suñu waxee ci biir kër gi ba pare su génnee na ca penc ma. Mhm. waaw nag état bi nag foofu nag am na fa wàll. Mhm. cër bu ndax am na ci ay euh, sama benn xarit daf ne dafa dem ci benn réewum naar. mu dugg dugg ci benn si internet boo xamante ni bu mu fa duggee rek dañ ko envoyé message dafa gis benn notification boo xam xamante ni dañ ko ko envoyé. na ko fii ngay dugg dañ ko interdit ci réew mi mhm. te loolu su xuusaatoon tuuti rek dañ koy envoyé benn virus boo xamante ne mën naa yàq machine am da ko yàq day yàq machine am wala mu ah. yàq téléphone am mhm. te loolu loolu état bi na cee jóg mhm. war na ñoo am benn yoo xamante ni parce que am na ay ay ndaw yu xarañ yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum technologie bu màcc na ci wàllum internet yu demee noonu mën nañ leen a gën a former gën a gën a yokk seen xarañteef ba ñuy segg internet bi uh-huh. li nga xamante war naa jàll ñuy xool ba xam est-ce war naa jàll uh-huh. yi nga xamante ne warul jàll ñu xool ba xam est-ce que war naa jàll waaye nag d'abord kër ga uh-huh. base bi kër ga am na solo euh, man nag waxtaan wi mënoon nañ cee dem fii ba suba du ma doyal parce que passionné par euh, lépp lu jëm ci wàllu société ak euh, yarum ndaw ñeek mm. yooyu parce que ndeysaan xam nga boo demee ba yor doom rek sa suusi yëpp mooy yar bi yar bi yar bi naka ngay def ba xëy na teg ko mm. ci tànk yu nga xamante ne ëllëg li sama yaay di ma faral di wax sa doom boo ko jooyloowul bu màggee mën na laa mm. jooyloo te foofu lay gën a méttee ñu bàyyi ci xel surtout côté téléphone yi ndax <laughs> ordinateur bi laay teg ñu ne maman dafa ma jeu nu <laughs> mu si mën. <laughs> c'est comme ça bu sa papa ak sa yaay xamante Facebook boo juddoo bëggoo ah, Facebook. waaw ah, ah, day grave c'est vrai bu ñuy takk mariage ci Facebook ak WhatsApp. dëgg la waaw xam nga bu fekkee sa papa ak sa yaay Facebook la ñu xamante ah faaw doom ji bu juddoo bëgg Facebook. boo juddoo laaj la téléphone waaw. ay ndeysaan loolu da ngay indi problème. ah ma bàyyi mu sedd ay ñu dem ñu waxte ci wàllu euh, wàllu nga xamante ne moom la ñu jagleel. Euh, njàng ak njàngale ñu nuyu Ibrahima ma nga xam ne ma nga ca hmm. Diourbel ah, ma nga ci ay mission ak euh, yu ni mel 16 euh, wala lu ko ëpp moom la nguurub Sénégal ameel ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci établissement privé euh, jëm ci enseignement supérieur 16 hmm. milliards nag du du million du 2 millions 16 milliards maanaam bor la bu nga xam ne dañ ko dajale at ak at ak at ndax dem nañu ba jamono ji dab ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum njàngale mi ba mënatuñoo orienté xëy na ci université publique yi ñu jublu ci privé bi gàllankoor ban bu ma doon ñëw déjà ci aborder sujet bi ban jafe-jafe ngeen di jànkoonteel ci li nga xamante ne moom moo di école euh, privée parce que Pape mi ngi wax sànq xëy na université euh, li fa am ci njàng amul ci fi nga xamante ne moom moo di ki man je parle de des filières. li nga xam ne moom ngeen di suivre ci privé bi amul ci ci public bi te amaana am na ñeen ñi nga xamante ne lañu ñu bëgg euh, amul ci ci fi nga xam ne fa ngeen nekk jafe-jafe yi lan lay doon boo ko doon mën a wax. ma nuyuwaat à nouveau di dugg dans le vif du sujet. Uh-huh. bu ñuy wax euh, jafe-jafe def naa ne day doon li nga xam ne day yaatu. Uh-huh. mais ñun université privée yi fi ñu toll wax dëgg yàlla fi ñu nekk moo ñu gënal fuuf. public bi uh-huh. ndax bu ñu nekkee université privée. Euh, nous faisons une formation professionnelle te après notre licence wala. même boo nekkee deuxième année sax am na ñi nga xam ne ñu ngi dem stage. Uh-huh. ñu nekk di liggéey. Uh-huh. xam nga loolu kon opportunité la. Uh-huh. boo amee sa licence 3 yaa ngi am sa diplôme professionnel. te alors que ni ñu nekk euh, biir université publique bi amee seen licence seen diplôme académique la ñu am. amul ñu nga xamante ne par yenn saa yi leen approché peut-être puisque yéen ay njiit ngeen pour wax leen ni man kat la ma bëggoon ci université Cheikh Anta Diop par exemple bi ma ñëwee fii fekkuma ko fii et cetera amul ci ci yéen. Euh, waaw loolu nag du ñàkk mais euh, boo xoolee dans l'ensemble. ñun privé yi ñuy orienté euh, plaisir la ci ñun. Mhm. ndax le président de la république boo xoolee depuis 2012 euh, il est le premier président à orienter des étudiants dans les instituts privés. parce que boo xoolee nombre bi dafa saturé woon. Mhm. public bi bu njëkk da ngay dégg man orienté wuñ ma. xam nga mais léegi actuellement nii wax dëgg yàlla pour nga dégg étudiant ne wu ma problème la virtuel baa ngi fi. Mhm. privé yee ngi fi xam nga. te aussi public bi tamit euh, day jël lim attan. bu jëlee lim attan leneen li ñu décentraliser ko ci public ci privé bi ak ci virtuel bi. Mhm. kon loolu noonu euh, effort la bu état bi di def. Mhm. état bi effort boobu noonu muy def nag n'empêche que euh, effort yi day des. Mhm. des fois te ci biir effort yi des noonu. genre euh, état bi dafa yoreel actuellement ni xaalis. Mm-hmm. institut privé plus de 16 milliards. waaw plus de 16 milliards euh, 459 millions. 599 mm-hmm. mille 147 francs. c' est ça ni ba 47 francs. kon xam nga ne stop xam nga ne loolu stop xam nga loolu soxna si doon na li nga xam ne ne euh, lu métti la. Mm-hmm. ndax institut privé yi dañuy fay seen i. location professeur dañuy fay seen i location xam nga. boo nekkee ci institut privé bi nii euh, dañ lay traité xam nga. comme si ku nekk ci benn milieu boo xam ne c'est du luxe. Mhm. da ngay def say cours paisiblement quantum horaire bi tamit dafay jaar yoon xam nga. Mhm. kon état war na def le tout ba mu fay institut privé yi lim leen yore surtout sax bu ñuy wax état président de la république la ñuy wax parce que ñun dañu amoon fierté ci moom te am nañ fierté aussi jusqu'à présent ci moom. Mhm. parce que moom moom njëkk initier affaire bii nii. te il a innové dans l'histoire du Sénégal mhm. boo xoolee mais tamit ci biir lii problème am na euh, yu bëri mhm. kon moom na jéem a def le tout ba mu wax ak son financier le ministre de le ministre des finances Amadou Ba pour mu mën a jël xaalis jox euh, waa FEPES mhm. ñi nga xam ne ne euh, c'est le fédéra c'est la fédération des écoles privées de l'enseignement supérieur waaw satisfait c'est hilarant en fait. J'ai envie de rigoler parce que mm -hmm. d'habitude quand je vois les étudiants parler, mhm. da ngay dégg dañuy yuuxu. ci pied de guerre la ñuy nekk pied de guerre. mais là ça ça prouve que les les écoles les établissements privés au Sénégal c'est super madame Diop dañu mës a déggante benn jour à l'époque où j'étais à Urban Radio avec Aladji Man ñu waxtaan ba pare émission bi elle m'a fait des aveux de taille en me disant ñun on a investi. dans l'enseignement privé au Sénégal defe naa seen bu sax yow ISEG nga génne donc ci bokk na ci ñi nga xam ne dañuy tàggat xale yi tàggatin woo xam ne dafay sax weesu li liñ leen di jàngal ci filière yi kese parce que là tu as un discours vraiment responsable euh, li ngay wax c'est le président peut l'écouter convenablement bu fekkoon étudiants yi nekk ci Sénégal yëpp nii la ñuy combattre ce qui est favorablement cool mais le 5 euh, defe naa le 5 la ñu wax octobre wala le 15 su ma dañu dax étudiants yi nga xam ne état bi ñoo leen orienté te ñu nekk ci euh, établissement privé yu Sénégal yi te ñoom it wax nañ dëgg parce que ku la yoreel 16 milliards ak 47 francs yi nga mujjee wax noonu mhm. c'est 16 milliards ba 47 francs loolu c'est beaucoup d'argent léegi est-ce que vous vous avez juste un message à l'endroit de l'État du Sénégal wala vous êtes constitué en entité pour mën a wax ak état bi ñu déglu leen ngeen wax leen ak ñaata ngeen aussi est-ce que lim bi euh, ñaata parce que ñun ñi wax dëgg yàlla dañoo bëri mm. parce que des milliers d'étudiants lay état bi di orienté ci institut privé yi mm-hmm. euh, yaa ngi wax sànq ci wàllu de responsabilité mm-hmm. ñun nous nous faisons une formation professionnelle mm-hmm. normalement war nañ euh, di di di négocier avant avant de faire euh, certaines choses qui sont insolentes. Mhm. Mhm. war nañ négocier ak état bi. Mhm. parce que état bi quoi qu'on puisse dire dañuy saluer ay gestam xam nga mais nos mots soo sont un te ci biir suñuy mots du ñu tay di wax ak état bi. pour mu fay lii pour l'instant ñun suñu suñu solution mooy que ni boo xoolee trois jours a ngi nii tey mooy def trois jours jàngul. kon wala wàllu génne bi nii gars yi génne nañ étudiants yi. ci institut privé yi loolu muy leer. génne nañ ñu xam nga. Euh, dañoo arrêté suspendre cours yi à une date ultérieure à une date ultérieure boobu noonu noonu ne signifie rien que état bi bu fayul. ñoom ñu recevoir ci étudiants yi yi nga xam ne état bi moo leen yebal foofu noonu. parce que dañoo sonn aussi tamit. Mm. là moom je vais m'associer sans réserve. Euh, au au au FEPES parce que dama leen di jàppale ci cadre boobu mm. noonu parce que ñoom aussi tamit ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ parce que métti na woon genre génnuñu benn étudiant wala mësoon nañ fi génne ay étudiants sax man dama part personnel man fa fa doon jëm parce que Pape boo xoolee d'habitude li ñuy gis ci ay combat euh, defe naa wax naa ko fii yàggul à chaque fois da ngay gis booy mën a combat euh, tànk boo teg rek après dangay ngay delluwaat ginnaaw ndax li nga wax léegi ñoom génnoon nañ fii seen cadre bi pour euh, fustiger li nga xamante ne moom mooy dette bi leen nguur gi amel ba sax voilà ba tax ah, ba sax ñu amaloon ay revendication ak plan d'action yu tëraloon ci loolu mais amul saafara seize milliards euh, et quelques. Hmm. ñu génnewaat leen est-ce que espérer ngeen un jour ñu daldi di vraiment saafara définitivement lu jëm ci mbir mi éponger dette bi comme comme Pape Sidi ni mu ko waxee. non je crois euh, fi ñu toll nii nii moom man am naa yaakaar ne état. Hmm. ak fi ñu toll nii nii parce que euh, boo xoolee ñaari secteur ñoo gën a am important ci àdduna bi nii laay wax mooy la santé et l'éducation loolu moom je crois que ñëpp xam nañ ko. Hmm. te fi mu toll nii nii nii nguur gi ci boppam. dafa dafay war a def kéem kàttanam santé bi jaar yoon. ak éducation bi tamit ñu ngi ñaxtu. waaw waaw mu ngi noonu santé bi ñu ngi ñaxtu xam nga. Mhm. éducation bi aussi tamit jaar yoon. justice ngay jaar ñaxtu parce que parce que loolu mooy jëmale réew ci kanam. parce que mhm. boo xoolee le président Macron lorsqu'il était ici euh, ba mu fi ñëwee xam nga euh, dafa am na message bi mu lancé woon. Mhm. nee na couvrir une école c'est fermer des prisons. kon kon kon kooku mu ngi xam na importance capital njàng mi parce que nee na couvrir. un école une école du moins mhm. c'est fermé des prisons kon mhm. loolu mooy wone ne école boo ko toppatooyee rek problème du am mhm. te aussi tamit ñun nii nii ni ñu ni ñu seddee nii toog parce que war nañ def benn point de presse incha allah lundi pour le situation bi nii wax ci euh, joxe benn ultimatum xam nga euh, yóbbu dinañ ko yóbbu ministère pour tëral yéen seen plan d'action ne ñun tooguñ fii rek di di négocier dañ danañ négocier nag mais aussi tamit bu état dafa am fi ay limites am na fu mu yem bu état réagirul xam nga mhm. ñun danañ passe a une vitesse supérieure mhm. te loolu noonu ah, am naa yaakaar ne duñ ci duñ fa yegg parce que état xam na ne éducation base la. non non baax Mor Magane moom euh, mu bokk ci ndaw ñi nga xam ne état bi dafa leen orienté ci établissement privé yi te état bi it war a jëflanteeg li mu warloog ñooñu nga xam ne dañuy fayal seen bopp seen ay jàngalekat. war a yor ay charge yu dul jeex. ci biir dakaar ak ci mbooleem établissement yi nekk ci biir réew mi. entretien bi surtout voilà donc c' est pas mm-hmm. très facile et très donné à à vous et on vous souhaite euh, ñu dellu si ci ah, nekk nii da nekk ci buntu àdduna yéen a ngi war a jeexal seenu njàng jàng. Uh-huh. uti lu ngeen am jàppale seen. te njiitu réew ba mu demee université Cheikh Anta Diop janoo ak étudiants yi. lam eh. leen xamal mooy euh, vie universitaire lu gàtt la. la ca kanam xëy na moo gën a metti kon mm-hmm. yaakaar naa ni comme moom moo génne kàddu yooyu xam na ne la ca kanam a gën a metti kon nañ leen yombalal. Mm-hmm. fi nga xam ne fi lañ toll ci muy muy jàng mi. comme ça bu ngeen jàppee seen beneen plan d'action te aussi Pape Sidi mm-hmm. naa la wax benn affaire boo seloo étudiants yi ñuy orienté fii ci ci université Euh, c'est am na ay yenn écoles yu décentralisées ci yenn régions yi mais du yëpp. Mm-hmm. étudiants yi dañuy jugee ci ay localités yi nga xam ne dañoo lointaine. Mm-hmm. bu ñëwee fii nii yenn ñi amuñ fi mbokk. Mm-hmm. dañuy obligé di loger wu xam nga. dañuy am problème yu bëri yoo xam ne ne tey say état bi lii nii war na def effort quoi war na def effort bu mag ndax lii nii rek wax dëgg yàlla am. am na ñoo xam ne ne buñ toogee fii nii benn jour defuñ dara dañuy ñibbi. Mhm. ndax xamuñ fu lu bëri jàng moo leen fi indi. Mhm. xam nga kon état bi saafara affaire yi. Mhm. ñun balaa bala bala bala balaa balaa balaa moo gën a. sori ayca ñu en attendant ñu xaarandi seen euh, conférence de presse wala point de presse bu ngeen naa amal euh, ni ki lundi ñoom ñi nga xam ne étudiant lañ mhm. nguur gi orienté leen ci école privée yi te yooyu la école privée génne nañ leen ndax euh, jàpp nañ ni nguur gi daf leen a yoreel bor mhm. pap di sans transition sans transition boo demee nga nuyul ma sama yaay jooju madame Diop bu ISEC ah maa moom ak <laughs> bien elle super méga géniale ce qui aurait pu être de l'opium est devenu quelque chose d'utile dans la société parce que chaque jour jàngoro ji ci jàngoro yi jàngoro ji ci justice bi jàngoro ji ci njàng mi jàngoro ji ci politique bi jàngoro jooju yëpp ki koy saafara mooy sambisel ak ñi muy àndal di ñu retaanloo tey nga ne ko dalal kokoriko kokoriko kokoriko kokoriko kokoriko kokoriko kokoriko kokoriko am di la tudd ñu gën koo xam ci Kodjo Kodjo e, Kodjo <laughs> Kodjo seen internet boo xamante moom ci internet bi la nekk di di karawaase gars yi ba tax na tey mu ngi fii tey teewal ak ñun pour divertir gars yi tuuti reetaan loo leen am di ñu ngi bu fekkee tuuti la demal non gars yi non moom day da koy ngandal da koy ngandal ah boo dawul du ma daw déggal li barki 3500 nga ni 3500 ban sëriñ la non balaa balaa la fa di fekk dafa xew <laughs> kon xanaa Serigne Billion <laughs> Billion moom mooy mooy mooy seen maam. <laughs> Eh, ku jóg loolu jox nañ la nga nuyoo bu ko defee ñu dugg ci ci say mbir yow lu xumbat la xool loo ñu indil tey ci ci ci wàllum loo ñu mën retaan looy tey. incha allah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi nuyu fekk ñëpp. Mhm. di nuyu Pape ko xam naa ni moom sama grand bien la. ndax Diourbel laa dëkk. fan si jaay mën naa mën la sax Pape Boni. waaw waaw. <laughs> Oh! sama maam ñawkat la woon ki ma tuddee. dafa amoon machine bu mu tuddoon machine Bernard gars yi naan ko pap ma juddu tombeek mu am machine bi kontaan ci machine xaw ma ci man la kontaan tuddee ma bëri. <laughs> loolu dëgg la. sama maam ko gënaloon man. <laughs> waaw mu doon grand bien nag. moom moom grand Jile Gueye. ay bàyyi kër sama koñ kër Cheikh Ibrahima Fall. waaw kay am nga sa mbokk taal <laughs> je t'adore dama kontaan ndeysaan ndeysaan Pape Sidi ndeysaan moom boo xoolee xam ne yi moom ngéwél la bokk ndeysaan waaw euh, yow am di dama sa histoire bakkan bi sa bakkan dafa am histoire bu ci am dégg naa parce que seen kër dinaa ñun am nañu lu ëpp bakkan yow waaw fop fop am na fa ay 2 mètres am na fa ay eh, bakkan waaw yow seen kër amul defal leen baax non maanaam ñun xam nga ay géwél la bakkan bu 2 mètres sama maam bi tax ñu naan sama maam bi ñu soqee ñun ñëpp eh. ñoom seen temps ñoom bu at ba at lan daan lekk yàpp ce eh, dañ ko daan reere maanaam buñ ko reeree guddi gi duñ raxasu eh. noonu la ñuy tëdd benn trente minutes ñu jug maraat <laughs> ndax bañ cafka gi sàppilee xam nga booy lekk yàpp at baat moom noonu ko mën a doxale <laughs> yàpp bi kay nu mu mënti demee rek ñoom noonu lañ koy doxale léegi ci biir lool sama maam moom xam nga ñun géwél ku ne géwél ne ndawal ah. ku ne géwél ne lu baax ku ne géwél ne sañse uh-huh. ci biir loolu bu daan toog sa maam da daan ñëw ba ci waañ daan fontu ah. xet gi ni mu daan def nii looloo tawi woon bakkan ba mu toll deux mètres. non mais il a raconté une histoire du début à la fin alors que rien n'est vrai dans cette eh, bu doon tax bakkan kii nii bakkan ngan jamono boobu la woon quoi ah. ay jamono ak jamono bi xam nga jamono yi. sànq yéen a waaw jamono biir noonu sët bi mujjee judd mi ngi am. un mètre quatre vingt quinze. ki ci topp un mètre quatre vingt dix noonu lañ ko jàppoo ba man mii maa mujj a juddu moo ma am cinq centimètres. sama histoire bakkan Jean noonu la demee ko. am na am loo xam ne xam nga ci benn géwél waaw xam nga dafa am benn dëkk boo xam ne dañ ne dañuy bañ géwél. dégg may leen moom géwél moom ku ko bañ yàqu nga. ma am sama xarit boo xam ne moom fit waa rëy mu ne dana fa dem te duñ xam ni géwél la. te dëkk bu buur dafa am koo xam ne da koy testeel spécial géwel mu ñëw fa daal ni salaamaaleykum man de gan laa fi daa am benn dëkk bu mu war a dem ci ginnaaw te dafa guddi may naa fi jaar pour fanaan ñu ne ko dalal jàmm. yëgul dañ fay tere géwél. xam na ko ndax géwél bu fa jaar rek moom faat nan la. Hmm. moom mu ne ci fitam moom dina marqué. histoire am dina fa jaar ba génn ñu xam ni géwél la kenn du ko faat. mu dem ca fit wa déglu ko rek. ba mu àggee ñu woo Adja ñun de am nañ fi gan kaay testeel ñu ko maire boobu moom testé géwél rek lay def. lu muy moom. moom ci togg la lay testé. ci togg wala ci. Uh-huh. leneen daal la lay testé. Mm-hmm. léegi mu toggal ko laax. laax bu fatt taraj bu baax macha allah defal ko ci tuuti soow. te xam nga géwél dafa bëgg lu baax boo ko defalee lu baax rek day sàllar ñu ko ne la yeewaay wala chum. maire ba defal ko ca tuuti soow saa waay cof ñaari cof soow ma jeex maire ba bett ko kopp soow rek sànni ko ca dëgg saa yi daan ni yee fàttaliku ni fii dañ fiy bañ jëwel mu wàcce waat kàddoom ba nooy ba mu dóoree dóoraat soow ma jeex maire ba bett ko faak potu ndaab soow ne ko ca paw mu ne ko waay sàmba maire bi ne bi piir baa ngi rey <laughs> am ay ñaan waaw ba tey ba bëgg mën naa ñaan ngeen tàllal loxo yi rek bismillah maam maam sëriñ la woon waaw ah, sama maam loolu da koo ba man maanaam yàlla ak nga lax teenu fonde bërigi meew sandicab lem toob café sukab xeet ginaari koosu lal bi man xubtaat man laa ñaar nopp yàlla ma nga suñu jabar tonu doom batalu cere xiinu ñeex geex yàpp galu meew sàngara sërif lem fanaan jabar jàmm dem dem àjjana fanaan lan waaw jabar jàmm après dem àjjana amiin ci yàlla sa ñaan bi de baaxul te gudd na compliqué na am na ay affaires yoo xam ne boo ko waxoon bu tey dama naan la jël. raayoo lépp raayoo yàlla ak. yàlla ak robinet ngalax. robinet ngalax. teenu fonde. teenu fonde. bërigo meew. bërigo meew. waaw. sandicap café. sandicap café. waaw mooy sandicap mooy. yëpp mën nañu cee wax amiin yëpp mën nañu cee wax amiin. sandicap café. waaw tawub xeer. tawub xeer. waaw su pap ginaari koosu. ginaari kawsu waaw am na ba pare da nga ko gisagul. non ginaari kawsu am na. génn mi boo ko boo ko banqué nii day bondé. mais ça dépend ci am na ay borom bëñ xam ne ñoom dinañ ko mën a jaay. <laughs> ñun ñëpp ñu ngi koy jàllale léeguñ avancé. waaw euh, maanaam yàlla rumi ne nga laxteenu fonde bëri ga meew sandi kablem taw café supap xeer ginaari kawsu lal buy manqub taat man laa ñaari nopp lal buy manqub taat man ñaari nop man laa ñaari nop mooy jabar ah yow yow parce que li <laughs> dégg nga loolu yow moom ngay nekk ci village <laughs> bi maanaam. waaw <laughs> ah. ay kii da ngaa foog ne kii dof la bi dof bu ñu pendir la nii yow nga ne ak ak mindaan ñaari nopp ak tëgg jabar jàmm non non non tey de. yow yaa wax loolu de. <laughs> waxuma mindaanum ñaari nop déglu ma rek Pape Boni bul bul accéléré sama. ubbiwaat ak ñaan gi ubbiwaat ak ñaan gi rapidement. yàlla ak robinet nga teenu fonde bari ga meew sandi kablem taw café su pop xeer ginaari kaw su lal bu manqub taat ma laam ñaari nopp yàlla ak ma nga suñu jabar mm. tonu doom mbartalu mm. cere mm. xiinu ñeex géex yàpp yuut meew sirit lem fanaanu jabar dam boobu laay bañ ñaan boobu c'est non amin non si c'est oui amin <laughs> non min non c'est oui amin eh non mais arrête ça <laughs> fanaanu merci beaucoup mooy kii kat desu ko raayoo wallaahi am na mu ngi la boo xamante ne maam ay bagages moom ci internet bi nga koy fekk ah. maanaam mu ci liggéey lu doy ah. Ah, waa mais anniversaire woon nga ba pare dimbale ñu rek parce que dama anniversaire anniversaire wu na yàlla Mati Sow bi su ma waxoon anniversaire tamit su ma demee xam nga sama gel la te moom dama ko wax ak gars gelu gars la après ñu wax ko rek. jeex na allah ñu gërëm bu baax invité yi nga xam ne ñoom la ñu amoon tey si plateau bi gërëm Jean Michel euh, di euh, jeexal Pape Mor jox euh, ñëpp dig daje demain incha allah jeudi ci quatrième numéro de la semaine ci seen matinal ce matin c'est à nous d'ici là restez avec nos programmes